d'abord commencer par présenter mes condoléances les plus émues au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Suite à cet attentat, à cet acte terroriste que nous venons d'enregistrer. Nous avons été informés par la gendarmerie et par les éléments des sapeurs-pompiers que sept individus encagoulés ont pris en étau

que de jeter un cocktail Molotov dans un bus transportant des Sénégalais comme soi. Alors, je voudrais dire à l'attention de ceux qui ont commis cet acte que l'État va se lancer à leur poursuite, va les rechercher, va les arrêter avant de les livrer à la justice. Nous sommes un pays de démocratie où chacun a des droits et a des devoirs également, à commencer par le gouvernement, les citoyens également, C'est cela qui nous lie et c'est cela qui nous rassemble au niveau de la République. Mais penser qu'on peut imposer par une théorie de la pensée unique ce qu'on veut à ses autres concitoyens relève de religion. Et je voudrais dire à ces personnes que l'État prendra toutes les dispositions qui s'imposent. Alors, euh, je ne saurais terminer sans marquer ma compassion et toute ma solidarité au nom de son excellence monsieur le président de la République Macky Sall à l'égard du chauffeur Abdoulaye Diop de son receveur mais aussi à l'ensemble de toute la grande famille AFTU je vous remercie je dois dire que lors de cet attentat terroriste nous avons déploré cette victime dont deux corps sans vie et cinq blessés graves nous présentons nos condoléances les plus émues au nom de son le président de la familles déplorées et souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées qui ont été donc affectées par euh, euh criminel qui a été occasionné par ces malfaiteurs. Au-delà, et selon les premiers renseignements recueillis sur place, ces sept personnes encagoulées qui ont entouré le véhicule ont aussi dépossédé de leurs biens les passagers qui se trouvaient à bord du véhicule, téléphone portable et autres effets, argent et euh, ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay mbokk. tey ñu fekk la fi nga xamante ne moo di marché Grand Yoff naka ngeen dundee li nga xamante ne moo di jafe-jafe yi booy di sànni xeer yeeg yooyu ak policiers yi seen liggéey ndaxam mi ngi dox. non moment bi ñu toll nii moom marché Grand Yoff lépp na ne teg place yëpp tëj nañu mais droit la la ci booyi ndax booy yi dañoo jàpp seen leader di Ousmane Sonko nekk leader opposant bi nekk nga xam ne nii dafa porté lu rëy ci Sénégal muy procès bu am doole bu am maanaa boo xam ne nii yenu na maanaa pour Sénégal utiliser ko nga toog xañ ko ndaw yooyu bi ko xañee ndaw yooyu ndaw yi dañuy réagir bi ñuy réagir nag. parce que yàq rafetlu ma ko mais ci tali bi pour ñu baaree route yi pour ñu defeer li nga xam ne ni mooy seen droit muy manifestation taxawu Sénégal ànd naa ci Sénégal kenn nu ko ci ndey kenn doon nu ko ci baay ki fi nekk ni di njiitum réew dañ koo fal par carte sama carte si la bokk man ma koy rëccu nag ma koy rëccu bisu tey depuis mars deux mille vingt et un programme yi fi am ba léegi. nga bëgg koo jël sarse ko benn doomaadama aadama te yow ana kon sa responsabilité ana nerbi yi nga daan génne ana policier yi nga daan génne te ko ci mbedd mi ana lan moo indi baatu viol ana sis lan la wax ci viol boobu viol amul menace de mort amul doo bàyyi jàmbur mu doxi soxlaam pour danga nga koy tëj ci kaw da ngay jël lu la neex nga sarse ko nga ne ah, am na milliers de personnes yi ko bëgg mu tolloog bu dee senegal quinze mille habitants la boo compté douze mille habitants yaa ngi ko topp mu nekk maturité nekk koo xam ne bu demee élection tey gagné la mënoo ci dara nga ne yow da koy xañ ci kaw Sénégal donnuñu ko ci ndey donnuñu ko ci bàyyi xale yi li ñuy def résistance bi ñuy def seen droit la dañuy resise jël li ñu moom ndax Sénégal gi dañ koo dénkaane kiñ ko dénk suñu surga la dañ koo jox ne ko liggéeyal ñu suñu mbindaan la dañ koo jox ne ko liggéeyal ñu suñu goudron bu rafet gàcce ma mais duñu la ci félicité de suñu xaalis nga ko liggéeyee suñu ndox mu ñuy naan sell na sellut duñu la ci félicité suñu xaalis nga ko liggéeyee dama yor sama impôt di ko fay keneen yor impôt di ko fay ma ne kon nañ mooy tundiku yenn falasif yi toog di jël benn doomu aadama di ko torturer guddeeg bëccëg jàpp ne moom deful dara amul solo liggéeyal yow mi nga xam ne yaa ngi liggéey yaay moom réew mi yaa yow lañ jox réew mi ci par carte 2024 lañ la yemale fexeel nga yem fa te dem bàyyi réew mi ci jàmm moo gën finne yi nga fiy yee doomu jaamur ji nga dugal ci kose nga génne ko doomu jaamur yi nga jëlaat dugal leen ci kose gi nga génne leen amuñu importance ci biir kose ndax dañuy résister pour seen droit amul réew boo dem fekk doo seen doomu réew di résister ñi leen di jël di leen dugal ci kose gi déedéet dañuy résister seen droit ñu bàyyi leen ci après ëllëg ñu xool nag conséquence bi ñu yàq ñoom dina leen coûter wala du leen coûter mais jël leen du leen dugal ci kose gi amul benn importance Sénégal ñoo ko bokk dañ doon wax Sénégal benn bopp nag waaye Sénégal instant téeméeri bopp la Sénégal instant yi téeméeri bopp la ndax fu ñu toll nii boo toogee ba naan leader politique bii mooy dem bii du dem moo tax ma ne la Sénégal léegi téeméeri bopp la mais nag taxaw pour xeex Ousmane Sonko da ngay sonal sa bopp de. mais sëgëm yàlla suñu borom la mais sëgëm jàpp nañ ko mandat d'arrêt lañ ko yóbbu mais. sëgëm mandat de dépôt mandat de dépôt pardon ok. ndax réew mi réew mi dina dal. man gaw ma dal ma dal de li tax gaw ma dal. Hmm. dañ dañ ci yegg. ndax mu ngi taxaw ne ne day tar day tas partim moo tax ma ne gaw ma dal gaw ma dal déedéet ma dal. kon tey jàpp nga ni ndaw ñi dinañ commencé def li nga xamante ne moo buñ ko defee def nañ seen ndax moom lañ bëgg. mais yow su ma la déggee nga ne ndaw yi ñoom li ñuy def baax na waaye bu ñu bokk ak yàq. non yàq moo rafetut yàq rafetut man du ma du ma du ma du ma conseil kuy yàq. Mhm. mais kuy résister di jël sa droit moom dama ci ànd ak yow. ndax tey man sama jëm bopp man du ma toog di yàq kon du ma digal nit nag demal yàq mais taxaw nag pour jël li nga moom kenn ku ne am na ci sa droit waaw fi ñu toll nii boo toogee ñu naan la Ousmane Sonko sàcc na benn portaabal portaabal ki nga xam ne bu soxlaa cent millions léegi am ko bu sox nemmee ko tur trois cent trente trois millions de vingt quatre heures nga naan ko sàcc nga benn téléphone loolu du ay reetaan ñi ñàkk nañ fayda waay suñu procureur dañ koo jox gëdd ci réew mi dañ koo jox réew mi euh, ci kaw mu ñëw atteel ñu dëgg ci kaw mu ñëw taxawuñu ci dëgg mais joxuñu ko pour mu andil ñu ay scénario ay théâtre déedéet justice bu amatul ci réew réew ma daanu na réew ma yàqu na Macky Sall na aliweer ci li mu nekk na aliweer ci li mu nekk bu ci reculé wul dina yóbbu réew mi ci guuta maa ko wax. tëjewuma lenn lu dul ndaw ñi mm. jëli leen li ngeen moom Ousmane Sonko seen espoir 2024 usmaan Sonko mooy seen espoir 2024 su leen rëccee ñàkk ngeen système bi moo fiy def te système bi da leen di toroxal salaamaaleykum. ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay di di nuyu ñëpp waaw. naka nga dundee li nga xamante ne moo ni jafe-jafe réew mi jàpp nañ Ousmane Sonko mu nekk mandat d'arrêt naka seen liggéey bi ndaxam mi ngi dox. ah métti na rek naqarlu ko comme ñëpp niñ ko niñ ko naqarloo di sénégalais wax dëgg yàlla Ousmane Sonko nekk koo xam ne ñun ku ñuy bàyyi dañ koy bàyyi xel lu baree baree bari bari Sonko moom dañ koy bàyyi xel dem biñ lii amee ba léegi nekkuma en l'aise am na ñeneen nit ñoo xam ne nii noonu la liggéey bi wax dëgg yàlla ñun parce que at at at a nii moo xam ne liggéey aji saa Sonko tey moto yi buñ daw procureur buñ ne dara mu ne moto yi te ñun dañoo paas ñëw wax dëgg yàlla di daan suñ doole tey buñ xëyut mën nañu bañ a dund dañuy am di yóbbu dëkk fa tey lu am rek ñi ne moto yi nañ arrêté loolu métti trop te ñun ay sénégalais lañ duñ guinéen duñ malien vraiment métti na trop suñ côté moom ñun moom borom mëri li ñuy dund actuellement ñoog yàlla rek xam waaye nag yàlla baax na waaye nag lii yëpp natt bu yàlla teg suñ kaw la dina jeex nañ ko bokk muñ rek vraiment waaye loolu daal moo fi ne moom actuellement. mais mais mais su su su su ay grève amee manifestation yi taal bi ñuy taal fii naka ngeen koy dundee parce que bu ñu taalee du ngeen mën a di continuer di liggéey li nga xamante ne moom mooy seen càccañ. waa taal bi bu xasee am dañuy dañuy déranger ndax ñun taaluñ booy bu ñu taalee ñëpp seen moto yi dañ koy jël denc kër gee lañ koy yóbbu ñëpp daw làqatu tey rek dañ fi jaar di sànni ay xeer di sànni xeer ñi toog di leen sànni xeer naan tëj leen. te ñoo xam ne nii lu ñu am rek la ñuy wut seen yoon nekku ci ñun li ñuy dund dafa métti dafa métti trop wax dëgg yàlla ñu ngi si situation yi méttee métti actuellement yow sa yoon new ci taal nga teg sa moto moom nga yaakaar jënd moto quatre cent nangam ñëw teg ñu fekk la fi nga daw yóbbu boobu xam na ñu xam ne sax dañ si ñàkk seen moto man loolu gis naa ko ñoo xam ne lii rek ñàkk nañ si ay moto yu moto te loo xam ne mun na ñàkk daal ci réew mi dëgg yàlla situation yi métti la ñuy dund actuellement tey boo doon wax ñi nga xamante ne ñooy topp ki nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko ñi nga xamante ne dañuy sànni taal tey boo leen doon na sa message lu muy doon. waaw ñooñu li ma leen di wax lenn la Ousmane Sonko moom actuellement nii man moom laa bëgg ndax ku ne xam na ko tey mënutu da neex a neex man bañ ñu ko ci ay sànneeg yooyu man gëw gëw ma ne mën nañuy sànni sànni ba récupéré Sonko amatul lu ñuy def léegi ba récupéré Sonko sànni taxul ñu mën a récupéré kon ñun ñëpp nañ ànd ak dal nangu dogalu bi yàlla xam ne lii yàlla moo ko teg ci Ousmane Sonko ñu nangu ko muñ yàlla jeexut ku teg rek am na nu la fi tegee lii nañ noppal nit ñi nañ ñu jàmmal ñun ñëpp ñu mën a liggéey dellu senegal dellu caat fa mu nekkoon dëgg yàlla ndaw yi daal man li may woo sama morom mooy ñi dal xam ne lii dañuy sonal rek Macky Sall nag def na li muy def nit mënu ci dara jaay na ko doole teg na ko li mu koy teg institut bu métti la ko teg mais mi mënu ci dara kon ñun ñëpp nañ nangu dogal bi yàlla bàyyee ko yàlla suñu borom yàlla jeexut mooy fi du fi mos a loolu daal li may dénk ndaw yi moom la ñun ñëpp nañ ànd ak dal waaw vraiment métti na trop nag mais muñ rek yàlla moom waxut kenn dara ku muñ mu ànd ak yow yàlla nee na mu ngi ànd ak aji muñkat yi kon muñkat yi buñ découragé wu ndax yàlla moo ko wax kon xëy na li mu ànd ak ñun du dey vraiment loolu maa ngi koy delloo ndaw yi. mais le fait ñu arrêté moto yi ne duñu daw. loolu naka la leen def. waaw métti na trop. Mm, man maa ngi nii damay xëy sama moto nga nee ma gaari ci buntu magasin ba suba ba léegi benn course la am war ko yóbbu Pikine mënumaa dem padd wala ko mujj yemale bagage bi Touba la jëm beneen bii cité kër góor gi laa ko war a yóbbu xaw ma nan laa war a demee te bu ma ko yóbbu du sotti ndax sama xaalis sama sama lépp ci lii laa ko yaakaar am livreur yóbbu ko yow ma nit yow ma dara wax dëgg yàlla mais kon tey lii dana métti si man trop bu ma sañoon li may gënal mooy fu mu bëgg a dem dem fa kenn du ma jàpp wala bu ñu may jàpp li ñu may jàppee mooy ma daw dajeeg police mu laaj ma ma jox ko 1000 francs wala ma jox ko leneen dem loolu mais lii moom dafa métti trop ndax am na booy bu fi nekk sax moto ba léegi muy vacam man a gut siy jot xam nga métti na barki démb lañ ko jàpp métti na trop métti na moom waaw jërëjëf ñu ngi leen jaajëfal bu baax kontaan bu baax bu baax merci beaucoup ok mooy day diis si de saa waay te dafa tàng day a wax du mooy suñu yaakaar dafa tas quarante avocats ñoo nekkoon si salle bi pour défendre ko point de trois yëpp de justice yëpp yi nga xam ne moom nañu waroon plaider suma brillant confrère yi soulevé nañ ko plein de droit yi par exemple que liñ ko jiiñ liñ taxal yëpp graaw mooy ay acte de terrorisme mooy diffusion de fausses nouvelles ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp da leen démontré ne leen que amul benn élément de preuve cest dire dossier boo xam ne dafa vide amul benn élément de preuve boo xam ne juge d'instruction mënoon na si sëkkandiku parce que amul benn dossier ñu ngi wax ay meurtre mais meurtre mu am ko il faut mu am un de genre mort pour ñu ne pour ñu wax blanchiment d' argent ah wala ñu wax acte de terrorisme il faut que ñu am ay par exemple ay transfert d' am ay relevé bancaire yoo xam ne Pastef jot na ko pour ñu wax diffusion de fausses nouvelles il faut nga prouver ko loolu yëpp su les les avocats l'ont démonté li si des nag mooy. moom juge bi juge du siège la juge du bi bu teg juge du parquet parce que juge du parquet dafay obéir mécaniquement ordre supérieur am mais juge du siège juge d'instruction moom dafa am indépendance am te l'histoire nous a montré que on a eu d'éminents juges d'instruction des éminents juges comme Mody Coumbaba qui ont refusé de décerner mandat de dépôt à l'époque contre le président Abdoulaye Wade etc etc donc c'est pour vous dire que ñun fu ñu nekk nii dañu euh, suñu yaakaar comme je vous ai dit tas na foogoon nañu que le juge Maham Diallo naroon na inscrire turam en lettres d'or dans les annales judiciaires du pays wante foofu parce que nee nañ ko signature bi ngay def décision bi ngay def devenir pays bi su fekkee dëkk bi takk na su fekkee dëkk bi te dans le chaos suñu ree ay nit ci yow lay dépendre soo buggee dëkk bi nag ne daal di sedd da nga koy bàyyi soo buggee dëkk bi takk commencé euh, décerner mandat de dépôt donc ñun fu ñuy ñaan di ñuy laaj moo tax ma cité leen Cheikh Anta Diop donc dañ ko def mandat de dépôt. dañ ko def mandat de dépôt léegi Cheikh Anta Diop moom di doon wax dina am benn heure boo xam ne nag yéen askan wi yéen askan wi yaa leen di jëkk yaa leen di jëkk parce que jot daf jot na su leen jëgul gàcce moo ñu dal non mooy dal non yu dee suñu suñu maam yi moo ñu dal ñun mais ak futur yi. est que mandat de dépôt bi dafa am appui wala amul appui. la gis ne mandat de dépôt il a pas de mandat pour tant que le jugement ne sera pas euh, <laughs> quand il n'y pas de jugement mandat de dépôt kay tey dañ ko téye fu mu nekk nii mi ngi si kaso Branco Branco ce qu'on ce qu'on c'est qu'il est venu par la Gambie. par C'est dans l'aéroport de Yundum qu'il a débarqué. Et là, je pense qu'il avait bien organisé son arrivée parce qu'il avait déjà une 4x4 à sa disposition et les, gardes du corps. Il a bien chronométré son temps d'intervention parce qu'immédiatement après, il est ressorti

L'État sénégalais, l'État n'osera pas toucher un seul cheveu de Branco, Parce que c'est un avocat. Il y a des conventions internationales qui nous, lient avec la France. Les conventions judiciaires qui, font que on ne saurait arrêter Branco et les détenus en prison. Le mandat de l'action, <laughs> la procédure du procureur, c'est de la farce. Tout le monde sait qu'un procureur n'a pas le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt international. C'est de la farce. Tout ça, c'est parce que c'est une réaction. Parce que le, le, en ce moment, le pouvoir de Macky Sall a peur des plaintes devant la CPI. Et la CPI a mis en branle ses enquêteurs. D'ici quelques temps, cette procédure va commencer. Et tous ceux qui ont touché à l'assassinat des 40 manifestants, tous les meurtres à balles réelles, que ce soit par les forces de, sécurité, à visage découvert ou encagoulé, comme le président de la République et tout son entourage répondront de leurs actes devant la Cour pénale internationale.